jaajëfa tey jaajëfa tey sama gars yi Mister check la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen beneen vidéo ci diggante Mamour Diallo ak Ousmane Sonko ndax dama commencé sonn ci wax ji umpalewu leen ne Mamour Diallo semo mon ami d'enfance def naa fi benn vidéo wax samay jaar-jaar ak Mamour ku ko bëgg a xam bu vidéo di jeexee dinaa jël vidéo boobu ma teg ko ci kaw Mamour ñoo bokkoon classe seconde ba terminal loolu wax naa ko ci tuddee naa ko doom sama doom Mamour jàlloo ak jabaram Binta Mamour Diallo comprendre mais ñu bëri dañ may dañ may wax ne ci affaire 94 milliards yi li tax ma faral Mamour Diallo te du question damaa faral Mamour Diallo damaa def sama enquête bopp tey nag dafa am ñaari abonné yu dal sama kaw lu parce que Maty trois pommes dafa wax ci affaire 94 milliards yi Maty trois dafa wax ci affaire 94 milliards yi wax ne Mamour Diallo vraiment Sonko togn nako et cetera et cetera di wax wax yoy xam nga man nak ma def sama commentaire mané du façon man Mamour Diallo pap Alé Niang ci bopam mi ngi may deg vidéo bi mi ngi YouTube Pap Alé Niang tok ak Sonko ne ko may Ousmane 94 milliards yi nga wax ni dafa génn dañ ko jël mais ñaari milliards rek moo jot a génn lu tax nga ne 94 ko Sonko ne ko muy muy ñaari milliards rek muy 94 muy fukki dërëm boo sàccee daal sàcc nga man loolu laa wax tey suba ah ma ne Pape Alé ak Sonko ci boppam nangu nañu ne 94 milliards génnul comprendre ngeen bal loolu laa wax man li ma wax dafa am Mamour Diallo billaahi wallaahi wa taalaahi sàccul 94 milliards man maa ko wax Sonko wax na ko am Pape Alé laaj na ko mu tontu ko ci loolu Sonko ci boppam bu fa bu ko leeroon ne dafa Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards ak Tayour Sarr ak ñeneen est-ce que sonkoo dina dem ci famille Lebu yi mu ne leen kaay leen ma dimbali leen. état bi fay leen quatre-vingt-quatorze milliards dama leen di laaj ndax Sonko dafa am benn société bu mu créé bu tudd Mercalex comprendre nga léegi li ma bëgg ngeen xam mooy avant may eggale parce que am na Pastef yoo xam ne su ma commencé wax yi rek ñu ne voilà kii daal day sóob bu jógee fii di wax ne mooy njaagu Sonko gëmul Sonko billaahi wallaahi taalaahi man Sonko laa gëm te incha allah Sonko laay àndal parce moo baax ci réew mi Macky Sall baaxul ci réew mi waaye ànd ak Sonko warul tax nag du ma wax dëgg Sonko deful dara lu bon ci affaire 94 milliards yi parce que politique politique la man loolu laa wax politique politique la Sonko bu fekkee ne noonu la mën a fexe ba nit ñi xam ne gouvernement bi ay sàcc daf ci am kay toog ñu lay wax ay Prodac kay toog ñu lay wax yeneen dossier bu fekkee ne ñaari milliards rek jot a génn. tay sa lañ ko jox mais Sonko xëy ni la mëna a def pour Macky Sall yëngutu mu né 94 man fofu la waxé ndax Sonko man ban intérêt la am di fen lan moma jaral ay fen magum jëm suma bëggé and ak Mamour Diallo damay and ak Mamour Diallo lu ci gobé jar ko suma bëggé and ak Macky Sall damay and ak Macky Sall lu ci gobé euh, gar <laughs> jar ki ko ah euh ñu ko wax naka olof bi waxé sax ah légui légui li ma wax dafa am bo leen ko wedde dem len ci internet bi ngeen xol ci youtube bi Sonko tok nak ak famille lébu yi ñaari waxtu man déglu na ben audio Sonko weddi wul audio bobu mu tok ak famille bi mu ne leen dinañ leen représenté ngeen récupérer cent milliards waye il faut ngeen fay ñu ci 12% 12% dafa na 13 xawma 13 milliards la xawma xawma ñaata milliards lolu Sonko que je parce que Sonko dañ ka dak Sonko Macky Sall daf un dak kon c'est normal mu ubbi le cabinet bu tuddu Mercalex di jéem dan comprendre légui nak tu waxé lolu ñu ne non non yow li ngay wax amul Sonko musul ut commission Sonko li wala la man li ma wax man tay may xex Sonko parce que man nëbbuma ko Macky Sall liggéeyal ñaari at ñu lekk sama 2 millions. loolu taxul ma bàyyi ko de loolu taxul ma bàyyi ko ma après ma bàyyi Macky Sall Mamour Diallo ci laa ko gis sama xarit bu yàgg boo xam ne gën naa ko gis nekkati ci APR la bokk ma àndaat ak moom defaat ci yeneen un million. mais ba ma demee ba 2019 gis ne Macky Sall mi mi ngi jalgate trahir Mamour Diallo dàqu ko ci affaire 94 milliards ci laa ne Mamour bàyyil Macky Mamour bañ man ma jël sama responsabilité ma bàyyi Macky Sall. ma dem ngeen baal ma xaaral ma jure fi comprendre camion bi ci la jël 2019 la jël sama responsabilité ma bayyi Macky Sall légui kon képp ku yaakaar man opportuniste la da ngay da ngay wax lula neex ndax man Mamour Diallo dama nako bayyi Sonko bayil Mamour bayil bayil bayil Macky Sall ba ba sonn mu bañ est-ce que yang may deg légui man kumay accuser di wax ne dama faral Mamour jàll ci 94 milliards yi wala man hypocrite laa xam nga gars dañu bugg wax ne man hypocrite laa te man ba may ànd ak Sonko yéen ñu am na si ñu bëri ñoo xam ne xëy na fii ànduñoo ak Sonko li ma liggéeyal Sonko est-ce que am na ñu si yéen ñu ko liggéeyal Sonko ndax man maa fi toog ma ne dinaa defal Sonko mille vidéos te am na ñoo xam ne sax ngi naan ma Mister Shake mil vidéo yi mat na ba ma koy wax boobu affaire Adji Sarr kenn xamu ko boobu xamuñu woon sax ndax Sonko dina am doole li mu amee doole Sonko kañ la am doole dëgg dëgg dëgg dëgg ci affaire Adji Sarr bi ndax bañ ko bëggee jàpp xale yëpp génn dëkk bi takk ne mu kenn du ko jàpp Macky Sall dellu ginnaaw Macky Sall lu ko neex la daan def ci dëkk bi waaye dëpp mars depuis le 8 mars ba léegi Macky Sall la défensive depuis le 8 mars Makissal est sur la défensive grâce à qui grâce à Sonko qui s'est opposé à lui pour une première fois pour une fois Macky a un digne adversaire devant lui là où Karim a échoué là où Khalifa Sal a échoué là où des ténors de la paire ont été démis de leur fonction comme Ali Gungay Amadou etc Sonko a rempli le vide laissé par l'opposition opposition Sonko moo ko def man bamay and ak Sonko affaire Adji Sarr kenn xamu ko sama way Sonko ne man may un Sonko te way bobu je dina ko guenné. waaw dina ko guenné. je koy ñu bari xeyna suivre len ma comprendre kon bu len wax ni man hypocrite la C'est pas parce que je défendre Diallo Mamou Diallo nak dama bëgg mu leer sen bop. sama xarit la benn nit ku la su baaxul woon ko tuddee sama doom surtout nag muy doom bu jigéen Binta Mamour Dieng muy doom bu jigéen ndax dañ ne turandoo day jël juróom-ñaari jikko su ma jikko Mamour Diallo doyuloon jikko ah jabaram Binta jàlloo doyuloon du ma ko tuddee sama doom man ñàkkuma fay des soxlawuma dërëm ci Mamour Diallo est-ce que yéen a may dégg. Mamour jàll yorul sama wërsëg man maa ngi Amérique je suis un citoyen américain billahi wallahi taalahi sama famille maa leen yor pendant plus de ah vingt ans sama yaay yóbbu naa ko mag man sama jaan wàcc na ci lu bëri maa ngi fii Amérique nekk sama sama sama di sutur la mu Diallo na nekk directeur de domaines ancien directeur des domaines na am kër fu ne mais moom xam na ne suñu diggante dara lalu ko lu dul xaritoo bu leer dem naa kër dem naa Louga seet naa ko ñaari yoon Louga. gis naa li muy def këram bi bañ koy jéem a taal famille euh, waa koñ bi ñoo génn ne kenn du ko laal lu tax Maître El Hadj Diouf ba ñuy taal këram ci ci événement yi mais gars yi dañoo bàyyi kër gi tàkk xanaa ci fin bi sax lañ ko dimb mais Mamour Diallo ba ñuy ñëwaat di ko jéem a waa koñ bi ñoo ne du du ko laal papam mooy imaamu koñ ba Mamour Diallo dafa papam dafa dafa tabax juma Mamour Diallo moo tabax juma man du mu fi nekk sax di wax projet yi ma gis mu ko mu koy liggéey bu dee sàcc la xanaa kon moom mooy Robin des Bois xanaa moom day sàcc ba pare di ko joxaat waa Louga xanaa moom mooy Robin des Bois affaire 94 milliards yi nag ba ba may sangoo suuf man dinaa ku ma indil kaamil ma waatal leen Mamour Diallo defu ko seulement moom moo def erreur bàyyi Sonko di ko accuser di ko accuser di ko accuser di ko accuser Mamour rek nekk sur la défensive Mamour Diallo mos ngeen ko gis mu dem TFM Mamour Diallo mos ngeen ko gis mu dem 2STV euh, Mamour Diallo mos ngeen ko gis mu toog ak Pape mus ngeen gis mu toog ak ay dara sës euh, non parce que moom dafa ne rek garaawul man xam naa ne defuma dara sama nekku ci buy joxe ay interview ay leeral point net jooyu ñoo ñoo koy jël wax man ñëwuma fi pour défendre pour justifier dara man awma sax pour justifier leen justifier leen wax leen ne Sonko laa wala duma Sonko Ousmane Sonko ci boppam man yàgg naa ko wax munuma tere nekk Pastef parce que Sonko moomul Pastef wax na ko moom dafa ñëw pour taal xel yi man jéewuma nek Pastef pour njëem bok ci cadre Pastef bien que j'en ai les les diplômes amna capacité bok ci cadre Pastef billahi wallahi taala man j'ai une maîtrise en anglais civilisation américaine mention bien am bourse ñu fi ñi nek Pastef dàq ñuma jang comprendre gënuñu ma xam ah, mu dàq ñuma ma analyser est-ce que yaa may dégg man ah, li mbaamu sax dina gëna tax tay bu ma ndaroon sax bok ci euh, cadre Pastef fi duma dem bokk parce que buma ma xamna nit ñi leen ma xolé né ki est-ce que war nañ ko wolu wala waruñu ko wolu man je n'aspire pas à être un cadre de pasteur je n'aspire pas comprendre en tout cas gëm na Sonko li tax ma gëm Sonko parce que Macky Sall Sonko rek moo ko fi moo moo fi ne Sonko fi ne Sonko rek moko fi tenir tête gis nga amna ño xamné né Sonko c'est un mal ñu melné ñu melné un euh, match trois Pommes Sonko c'est un mal man xam nga lan laa leen ci tegal

jomaay nee na yëguñu ko buñ ko yëgoon duñ ko bàyyi mu dem foofu wax ñu leen la fa def lu bonde mais foofu bu fa demee dañ mën nañ ko fa piéger affaire massage kon Sonko xamul lépp amul dëgg ci lépp ci affaire 94 milliards Pape Alé Niang toog na mu toog Pape Alé ne ko waaye yow sa waay ñaari milliards rek a jot man nag expliqué naa leen lan moo tax Sonko def li mu def ne Mamour jàll dafa jël 94 comprendre li tax mu def ko mooy ne. Qui daf koy wax Bart euh, euh, Malcolm X da koy wax des fois you can you're gonna fight you're gonna win by all means necessary manam di nga xex di nga gagner par tous les moyens des fois la fin justifie les moyens des fois laaj na am ay fen yo xamne dafa bax même ci l'islam boudé meun nga fen pour nit baña dé l'islam daf na la fenal Sonko boudé da fay meun na ngeen balma wax ludul deug ngir Macky Sall djougué fi wala ngir sobe Sénégal dina ko jar Mamour man bu ma leeroon dafa jël 94 milliards man maa koy woo ci suuf parce que sa xarit tamit doo doo taxaw ci ci ci internet bi di ko weeje maa koy woo ci suuf ne ko Mamour Mamour Diallo ne ko saay ah, ah dellool 94 milliards yi maa ko koy wax dellool 94 milliards yi parce que baaxul mais Mamour def ko man du ñëw ma fi bu dee nag affaire Adji bi ñu ko ci tudd di tudd Mamour Diallo loolu moom bu fekkoon dama ñëw jàpp ànd ak Mamour Diallo ci loolu mën ngeen ne kii nag gëmul Sonko mais affaire u Adji Sarr bi dañu ne ku jege Macky Mamour Diallo moo bind plainte bi kooku ne binduma ma ko joor jaañu ko bind loolu ba mu ko yëgee Mamour sama xarit la li may wax nii sax waruma leen ko wax waaw sama xarit la ci suuf laa ko woo ci suuf laa ko woo ne ko Mamour li may dégg est-ce que dëgg la yow kii la jege ah? ñu koy tudd ci affaire ci affaire Adji Sarr bi Mamour lii graaw na de Mamour de lii boo ko defee vraiment erreur nga loolu laa ko wax parce que ma ne ko Mamour Diallo affaire Adji bu dee yaa yaa yaa yaa def nii ñu naan dafa am ñuy complot yow ñu tudd la si ñu ne da ngaa bokk ci complot bi man waxuma ne Mamour dafa def complot de waxuma ko comme dañu ci tudd turam man dama kaa woo ma laaj ko ne ko dama ko audio sax laa ko bàyyi Mamour tontuwuma dama ko bàyyil audio ma ne ko Mamour bu dee lii da nga ko def waroo ko def parce que man xamewuma la lii yow jullit nga ku baax nga xamewuma la fayu bu dee Ousmane Sonko moo la dàqalu yow loolu nga jàpp parce que ñëpp gis nañ ne ba ñu waxee affaire 94 milliards ci la Macky Sall profito daal di dàq Mamour nga toog 4 ans gars yi 2017 la woon defe naa ba 2021 ah liggéeyutuloo amatuloo salaire kan moo nga yow boo jàppee ne Sonko moo ko def te man nee naa Mamour Sonko def ko ma Macky Sall la ko def boo jàppee ne kii moo ko def Sonko léegi nga yëg ne Sonko mi ngi dem di maase wu ay nit dugal la ci ñu mel ne ay Ahmed Sidi mbay sa moom la sa gëm moom la mën naa comprendre parce que Mamour tamit nit rek la mën nañ comprendre moom it mu ne xaaral ma jéem a fayu mais xalaatul woon ne affaire yi xëy na dina demee ni xëy moom li ñu bëggoon mooy ñu wane ne Sonko li muy woote nekkul ci moom mais mais xam nga lu tax ay affaire complot yu wóorul. parce que affaire complot xamuloo fan lay mujje gis nga tey demoon nañ ba Macky Sall ndaroon ci ñàkk nguuram mais nag boo tax man waxuma ne Mamour def ci dugal loxoom waxuma ko waxuma ne fenn yoon ne def ci dugal loxoom mais damay wax rek man lii moo leen di wane man dëgg moo ma ñor bu ma leeral ne Mamour dafa def lii du ma ko bàyyil su ma doon faral Mamour du ma ko du ma ko boobu kon bàyyi leen di wax ne Mister Shake man damay faral Mamour Diallo damaa contre Sonko Sonko man awma lu ma koy prouver su may ànd ak Sonko ànduma ak Sonko pour Sonko Sénégal moo tax may ànd ak Sonko ak contre Macky Sall bu dee da ne Sonko ma c'est mal man je vous dis mal nécessaire parce que amul lu gën a yées ci dëkk bi fu mu nekk nii pour man loolu laa jàpp Macky Sall maître El Hadj Diouf nee na Sonko bu njëyee nekk président day sàcc pétrole bi pétrole bi rek moo tax da koy jëy day jaay pétrole bi mais mais Macky Sall lan la jaayul fu mu nekk nii senegal Sénégal jaay na suuf si jaay na géej gi ah? a pétrole bi zircon bi port bi autorité yi supermarché yi kon bu len mo wax Sonko bu day jaay réew day jaay réew mi dal ci patriote yu melni ñun ñun bo ñu da ngeen di comme lila, la nañu dem tok ci tout tous. mo mënu ma ak mais bu ñu mën nañu tok ci suuf bayi len di attaquer. ñu melni ñun il faut ngeen ñi il faut que vous nous respectiez parce que nous, le bon bon nous avons fait ay vidéo nous sommes au Sénégal nous avons ñu Google, ñu ci sans bi waaw Bay gis nga il faut que nous nous donnez-nous le minimum de respect Ousmane Sonko nag fépp fu mu nous ko wax mu neex sommes parce que nous ñoo ko war affaire Adji nous sommes Sonko like leen partager leen le merci.